merci en fait chaque fois que nous def un grand gala par exemple grand combat nous une réunion de sécurité promoteur bi les managers mm-hmm. mm-hmm. la police nationale la gendarmerie nationale les sapeurs sont avons au passage mm-hmm. on est satisfait de la prestation alors pour mu jox ko kaddu gi jox ma nag kaddu gi CNG wax ne làmb ji nag nii lay demee voilà mm-hmm. les conditions xam nga la sécurité daf ñuy accompagner pour ñu organiser tout à fait ñu wax leen yéen est ce que niñ bëggee mu ne na nekk ñu ne ñu effectivement d' ailleurs danañ liggéeyee nii liggéeyee nii liggéeyee nii ça c'est clair oui mbëri bu ñëwee fi la jaar tel tant d' accompagnateur lañ ko may mm-hmm. par exemple le combat Balla euh, dafati ne bu mujj bi grand gala quinze lañ leen mayoon chaque comme ñu ne non président vraiment dañu bëgg nga yokkal ñu parce que voilà pour la chorégraphie pour le sponsor et cetera et cetera ñu ne ok accordé ñu toog ñu leen ku sol blouson du dugg mhm. duñ toléré benn service d'une personne c'est-à-dire que amul naan ëpp na ñu dagu déedéet ca buntu ba

parce que mënuñu continuer nga dugg ci. enceinte euh, bi alors euh, arrêt ñu arrêté ben combat nga dugg pour nga def ci cumbukaay tu mets 35 minutes par exemple dafay influer ci. combat combat légui moi j'ai dit que 5 minutes bo duggee 5 minutes ngay am droit maximum 5 minutes pour le grand combat 3 minutes pour les petits combats. les combats préliminaires pardon bo duggee foofu bo am 3 minutes nga paré nga génn. Mhm. waaw légui maintenant vous préparer aussi tu as 5 minutes pour ce combat bi bu bi mais maintenant c'est c'est comme n'est-ce pas euh, au niveau international hein Qui suy bëree ñu ne voilà après ban euh, après ban contre c'est c'est Bira qui vient. dañ déjà yaa ngi préparé Bon, il paraît, tu viens comme du règlement en tenue de combat pied nu torse nu prêt à combattre. nga taxaw nga dugg lool vraiment on a réussi à installer ça ce mécanisme ci mbër maintenant xaalis yow nga dem ñu olé la ngay parce que légui ñu ñuy ragal forfait. c'est-à-dire que ñun xool duñu naan pour dagg xaalis te ne bu bon pour temps bi jotee premier avertissement deuxième troisième c'est le forfait nga toog ñi lay ñëw il faut que ñu dem ci sport yi am na forfait mhm. maintenant il se trouve que am na da nga koy def yoo xam ne règlement d'accord ci mhm. mu lem au moins trois minutes yooyu c'est dañ koy dagg parce que boo ko deful mu ne deux minutes trois minutes nga suspendre mbir mi c'est tout mais nga dagg ko amna na ñoo xam ne déclaration est sortie amna ñu bëri dañuy bëri kenn dagg ben dërëm mais la ñu dagg xam nga ñun nous sommes on est chargé de gérer nous gérons la lutte la gestion alors ñoo war utal suñu bop ay moyens pour notre pour notre subsistance fonctionnement bi fonctionnement bi ñoo ko war war na jënd carburant war na jënd papier war nañu hmm. jënd war nañu jënd war nañu jënd war na extra extra extra extra et même dans l'accompagnement de l'État nous devons ci limité wu des moyens additionnels pour au moins satisfaire et parfaire notre politique sportive Nous nga duñ ne dañuy dem pour la direction nest des jeunes talents pour l'horizon 2026 Nous ne monsieur le ministre euh, nous voulons nous solliciter n'est-ce pas euh, voilà des titres de voyage pour aller à commencer à Bukot, etc. non donc il faut que nous jël 15 caisse bi avion dem il faut trois jours au moins def ko wala auto. jël lieu autre par exemple def lu tour daal dem defi donc et tout on a fait des tournées nationales. jërëjëf yoo xam ne loolu yëpp ci xaalis boobu lay donc dans tous les sports du monde y a ay pénalités yoo xam ne fédération yi dañ koy def ci effectivement yenn athlète yi wala même ci yenn délégation